wax sax nit ñi duñ ko déglu. finalement alors je, je, très bien je, je pense Donc, que. vraiment je pense que j'avais énormément de choses à dire. mais mais quand même c'est équilibré. dans cette histoire-là y a pas de neutralité hein, contrairement à mon frère. Joseph ah, alors très bien sa Saré. gis nga dëgg y a qu'une seule vérité. monsieur Saré àddina benn vérité moo ci am. Mhm. soit da ngay dëgg moo am wala fen. Très donc bien. dans cette histoire là da nga naan lii mooy dëgg wala nga ni lii fen la. très bien très bien dans cette histoire là tous les Sénégalais savent qu'il y a un complot ourdi contre un opposant alors di ko xam ñëpp dañoo bu ñu ko leneen la ñu bu ñu ko bu ñu ko temps bi maye mais je ah, pense que c'est équilibré parce que wax nga li nga wax yëpp seulement pour waxaat la ne euh, pour waxaat la ne non tous les <laughs> sujets yu ñuy traité bi monsieur Sare yaa euh, euh, milliards wax nañu ko fii nu mbelaan les quarante cinq milliards wax nañu ko fii fii chaque mais semaine non, on parle de trois sujets ou quatre sujets c'est parce que dafay ñëw tout le temps non parce que day ñëw tout le temps monsieur ngi koy wax Serigne Saliou s'il vous euh, ngi koy wax aujourd'hui euh, accusatrice bi ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu ku yoon dañu jàpp ne dafa war a ay preuves d'autant plus que son avocat ak ñu ànd ak moom dara leeru leen ndax dañuy dem ci procès wala dañuy dem ci non-lieu c'était le moment et l'occasion et pourquoi wala nan nga mën a comprendre Adji Sarr bi wax ci Californie ci benn vidéo bu ñëpp dégg que bu ma jàkkaarloog Ousmane Sonko dinaa teg lu leer parce que kuy jàkkaar doo nga war a yóbbu lu leer son avocat également dit la même chose et devant quand même ki nga xam ne moom mooy le juge mu mel ne ku muuma wala boog di waxul wala mu teg lu leer ci table bi euh, Fatou Abdou moi j'ai pas l'habitude de tirer des plans sur la comète dinaa ci dellusi si mais moom a ma wax ak euh, monsieur Sarr xam nga bu dee ñii ñoo nekk euh, ay cadre Pastef Ousmane Sonko na wuti ay nit non très franchement waaye bàyyil fayu bi yow it li ma la wax. <laughs> waaw sëñ bi dama lay fayu non non non j'ai souffert j'ai souffert en vous écoutant vous allez souffrir en m'écoutant. tu vas toujours souffrir parce que. mais laissez-moi laissez-moi parler. soyez galant. soyez démocrate. soyez démocrate. argument lay indi. indi argument maa ngi lay déglu waxal argument boo waxee argument ma tontu la. d'accord dama amoo xam-xam a sonal nit ñi. non faut arrêter toi aussi. j'ai pas dit ici que j'ai donné un cours magistral génul sama gémmiñ. ah Aïssatou Diop Fall de loolu la woon. waaw ah, Aïssatou est libre de m'apprécier. benn mais elle est ah, libre de m'apprécier. da nga xamul dara. tu n'as rien dit de même de bon. Ah, tu n'as rien dit ma boo paree ma wax. grand grand Sarré bàyyi ko mu wax. on ne personnalise pas le débat. les considérations crypto personnelles intéressé wu ma mais ci li mu wax laa koy tontu. vas-y. mais les considérations crypto presse ay xamoo dara ak faute yu bari yi muy def ci français. non non non non aussi kii moom déggul tubaab. <laughs> waaw yow damm nga fi yàq ñu tegaatee vidéo yi ba déglu la xam ne déggoo tubaab yow. mais ça c'est pas grave. mais dinaa ñëw ci wax ji. dama ne le juge d'instruction bu ko neexee gis nga enquête yooyu ñu defoon jox mu xotti ko il fait reprendre l'enquête le juge d'instruction a la possibilité de faire des commissions rogatoires maanaam bitim réew daal di wax ak mboroomu jugeam foofu mu enquêtal ko. indil ko dégg nga baax li ma la wax. dem à l'interne. non déglu ma expliquer la. dem à l'interne ne me coupe pas laisse-moi. bàyyi man man texte laa lay wax. <laughs> bàyyi ko sumina li texte laa wax. mais commission rogatoire li ma lay wax ni texte la. commission rogatoire mën nga ko def sax ci biir Sénégal. waaye mais nee na dafa ndànk ma expliquer la mais qui peut le plus peut le moins. loolu tubaab la. mënuma dara nag yéen tamit. waay mën ko déggul lu ma ci mën. dama ne qui peut plus peut le moins. ki nga xam ne mën na def commission rogatoire ba bitim réew kay ay la yowén mbay ci say oom am déet voilà donc bàyyi leen li ngeen di wax dama ne le juge d'instruction mooy apprécier ku muy woo ak kum dul woo li ma wax dafa leer et je le répète mooy apprécier ku muy woo ak kum dul woo du doomu aadama mooy taxaw ne ko woowal diw wala bul woo diw maintenant ci entendement ku ci nekk mën nga ne ah diw de déglu nañ benn audio boo xam ma ngay wax lii ma ngay wax laa ku mel ni Mamour Diallo jaadu woon na ñu déglu ko jaadu woon na ñu déglu ko mais cela ne veut pas dire que dañuy jox instruction wala injonction au juge d'instruction excusez du peu mu taxaw ne da ngay déglu diw par force amul amul maintenant bu ñu demee tribunal aussi ma dellu si waat foofu pour wane la minceur de ton état d'esprit gis nga bu ñu taxawee tribunal ku ñu woo avocat yi adverse bi bu ñu nee diw lañu bëgg diw boobu mu nekk ministre lu mu mënta doon dana dem wuti ay autorisation ak ay affaires yooyu mais attends ça c'est trivial yooyu tamit c'est élémentaire. alors mais l'essentiel. mooy nga ñëw wuyu si. looloo am solo. Amadou répondez à la question. waaw déglu ma ñu ñëw looloo am solo mais non non defal ndànk xam nga booy wax. te li ngay wax maîtriser woo ko bu ñu la waxee da ngay nangu nga développer ay argument man ñëw ma di défendre ay politique ak ay wax ak ay affaire yooyu dañuy wax benn dossier dossier bu ñuy wax boobu ca loolu laay wax bës bu ñu ñëwee pour juger un une gouvernance wala faire bu boobaa dinaa leen jox sama xalaat eggaguñ foofu bës boo leen bëggee ma jox leen sama xalaat ci gouvernance woo leen ma ñu organiser un débat sur ça mais dañu tëb di kok à l'âne amul sens. alors répéter sa question ma tontu la. alors je, je alors je disais alors parce que ton tontu je, je disais que ne euh, euh, ki nga xam ne moom mooy accusatrice bi ñenn ñi seen xam-xam màcc ci wàllu yoon dañu jàpp ne c'est l'accusatrice moom moo war indi bu ñu waxee ak parce que c'est Adji Sarr moo war a teg ay preuve ci table bi sànq yow lewalal nga ko mais su fekkee ne leeru ko ndax dañuy dem procès wala duñu dem procès est-ce que bëggoon génn am na solo teg li nga wax moom wax na ko sànq monsieur saar mais ndeysaan expression bi la xamul accent aigu xamul xamul expression bi ni ñu koy waxee la charge incombe à l'accusateur dafa am expression toute faite toute faite expression toute faite la charge incombe à l'accusateur mooy l'inversion de la charge de la preuve exception la dans une juridiction exceptionnelle qui s'appelle la CREI. non non nañ ko teg de côté. non oh. aywa man ma continué ci question bi aussi non non sëñ Saliou da nga may déglu ba pare parce que day gën a gudd rek wax. dama koy démontrer léegi je suis pas d'accord sur ça. <laughs> après ñu ñëw ci yow après ñu ñëw ci yow sëñ Saliou. sëñ Saliou Amadou. waaw ba mu terminé rek léegi nag bu fekkee ne dañu taw ñu ne. dañu toog ci bureau juge d'instruction bureau juge d'instruction mais juge d'instruction moo naan la lii laa soxla lii laa soxla lii laa soxla mais da ngay si bureau d'instruction rek génne yëpp ne bëcc amul fenn. Amadou dama ne déglu ma rek Amadou. Amadou bu ñu la laajee. déglu ma kilifa def ko wax sànq bu ñu la naan ndax yow. Fatou dañu dañu la violé. nga wax mais déglu ma Fatou Abdou. xanaa di nga ci teg xam nga fi mu toll nii xam nga dès le départ damaa wax benn expression dama ne j'ai pas l'habitude de tirer des plans sur la comète xam mooy lan. bureau juge ba ku la fi wax ne juge bi lii la laaj day nax boppam dama ne ñi fi toog ku fi ne juge bi lii la laaj day nax boppam fekkee woo fekkee ma. ñoom ñaar ñëpp après def nañu ay conférence de presse ils ont mais loolu sax moo moo loolu sax moo paradoxal parce que du ma wax du ma wax après nga def conférence de presse wala nga def déclaration la ngay déclarer doo ko déclarer juge bi muy aji Sarr ak Ousmane Sonko ci yem ah pour man ñoom ñaar ñëpp seen déclaration yooyu nañ ko déclarer juge bi. non waaye nag Ousmane Sonko doon def. waaye dëggul ma rek dëggul ma rek non dëggul ma rek man. je ne suis pas là déedéet non non defal ndànk am na loo xam ne <laughs> am na loo xam ne juge justice bu eggee ci wàllum liggéeyam ay influencé ay ay militant ay wax li ak yooyu amul solo mais même ma terminer rek ma li ma laaj li ma laaj même ma terminer après. dossier bi moom non waxuma dossier bi. man sama yoon sama yoon ci ay dossier bi la nga ci xalaat. man am naa ci suma xalaat et personne ne m'impose une position dama ne personne ne m'impose une position euh, voilà laissez-moi terminer j'ai mon opinion gardez la vôtre terminé j'ai mon opinion gardez la vôtre maa ngi ñëw ci yow déglu ma expliqué la dama ne da nga ma laaj lu leer danga nga ne ma preuve yi nga xam ne dañ ko war a génnee ci nga xam ne devant le juge ñi doon wax am naa preuve am naa preuve hmm. te wooru leen ba xam dinañ dem procès hmm. loolu nga laaj dégg naa bu baax li nga wax ñooñu bu ñu téyee seen i preuve bu ñu demul procès nag waaw loolu ah, mooy loolu kay kon est-ce que waaye nag dama ne la. est-ce que donc est-ce que jàpp nga ne am nañu preuve yooyu mhm. Abdou. balaa ngaa ëpp gémmiñu sàmm nga xam lu muy wëris dama ne comme dama ne ko ki nu mu tëti euh, euh, instruction bi jeexagul sànq dañ ne confrontation bu amee rek jeex na. loolu fu ñu ko jeexagul pour pour dire dama ne dafa jeexul. instruction dama ne le juge d'instruction moom. mooy instruire mooy xool kañ la koy boucler kañ lay déglu bu doyalul dolli nee naa la mën na def sax commission rogatoire donc loolu si yeneen cas. mais dama la bëgg a expliquer rek non non non mën na amaat yeneen confrontation. mën na amat yeneen confrontation il faut si attendre loolu juge d'instruction bi mooy taxaw xool. moom nan lay liggéeyee du ñun ñooy taxaw wax juge d'instruction bi. liggéeyal ni defal naa d'accord léegi léegi nag bu ñu tollee bu ñu toll non dafa ko terminé. vous terminez léegi nag bu ñu tollee fi nga xam ne. non defal naa ko rek defal naa ko rek. non mais mais mais ban jàpp en otage man sànq bi ngeen di wax dama leen. non non non il a 30 secondes. mais mais mais mais attends aussi da ngeen di gën a guddal li ngeen di def. defal naa defal naa non. saare. waaw mais Sénégal aussi bu ñu toogee ba ba ba rapport bi ñu wax lu ñu war a def aussi ñun tamit non yow tamit toogal yow tamit waaye toogal waaye tamit bu ma wax loolu waaye mais déglu ma rek waaw kon nag waaw kon bul yàq waxtaan bi bul yàq waxtaan bi léegi may ma ma daaneel non non non non may ma ma daaneel non le rappeur ku wàcc kaamil la waaw d'accord wàccal le rappeur ku am wàccal lépp dix man a yéegal wàccal le rappeur c'est aujourd'hui les juristes man de d'accord les Barry et autres mais ma ma continuer non non non non non tu as parlé des rappeurs mais ma continuer non non non yow déjà grand yow sa problème mooy. kon man baal ma noppi les gens essayent d'être courtois avec vous. mais malheureusement. mais man maay terminer man maay terminer après ngeen wax. waaw mais non mais attends. man lañ posé question. waaw d'accord mais pourquoi vous me coupez la. Amadou Amadou parce que Fatou Adou kon jàllal jàllal. non demal taxaw fii Amadou. alors jàllal à autre chose ngay insulté. non jàllal à autre chose nit ñi di toog di la seetaat aussi tamit. nañ nañ comme bëgguñu dégg jàllal à autre chose. ah garaaw. quand même boobu ba léegi respect gi daw Amadou nañ nañ nañ. man de man de li ma fi wax sénégalais yi dégg nañu. loolu moo ci te moom moo ci am solo. parce que ba pare lii maa ngi ñëw ci yow. ma nous tous nous parlons avec les Sénégalais. mais ce que je dis les Sénégalais l'ont entendu. bi ñu jël. a continuer maa ngi ñëw ci yow. Aïssatou tout à l'heure bi mujj ci yow. yaa ngi wax ne Ousmane Sonko dafa sol dàllam euh, dem fa mhm. euh, nga jàpp ne waru fa dem mais aujourd'hui maa ngi lay wax ne est-ce que loolu c'est un début de preuve parce que Ousmane Sonko sol na dàllam dem na Sweet Beauté rek mu mel ne li ñu koy jiiñ ak loolu ça fait le viol c'est un crime moom la koy jiiñ mhm. bokkul ak ki nga xam ne bu ko neexee mu am la liberté dem fu ko neex aussi waaw euh, euh, euh, Fatou damay danga may may permettre mooy ma tontu tuuti <laughs> monsieur xam nga ni naa la tontu <laughs> non non mais mais mais vraiment je vous je vous apprécie beaucoup nag parce que maa ngi lay suivre bu baax ci ci xam nga man nag damaa bëgg Pastef dama leen di suivre bu baax te personnellement ah yow ah <laughs> si si mine de rien malgré les apparences je vous ah aime bien donc mais. Euh, wax nga wax nga sànq laaj nga ma am na yu ma noté fii nga ne euh, waruma waruma far parce que juste aju sax jigéen la ma far mais <coughs> euh, xam wax naa lii dafa mel ne comme marché de football malheureusement gis nga passion <laughs> passion bi am fii oh, et c'est et un peu dommage c'est c'est dommage par contre mais non ça c'était une boutade mais par contre man faruma faruma ak fii faruma ak fële dama ne euh, dama am compassion sama compassion naturellement ci xam nga nag yaa ngi tooñ yaa ngi tooñ léegi sama sama sama compassion dama wax ne dafa dem naturellement ci Adji Sarr parce que jigéen la comme man te wax naa la léegi ne bémol yi ci am wax naa la ko euh, euh, mais nangu nga aussi nangu nga nangu nga ni. daa déggul tubaab xamul luy compassion. non Amadou Amadou Amadou. <laughs> Amadou Amadou il est nul et il manque d'éducation. Eh, non non non non Saré le débat depuis le débat boobu ba tey franchement on on a fait quand même le débat est très civilisé oui bu bu bul ci dugal loolu ça moom franchement du ma ko nangu sax oh, oh, du ma ko oh, nangu monsieur Saré oui monsieur Saré oui. voilà dañuy waxtaan donc je dis que euh, ci ci lii dafa dafa dafa dafa passionné nit yi. parce que ki nekk euh, xam nga ni mu passionné sénégalais yi ba ku ne am si sa avis xoolal kaaw si tondo par exemple passionné wul autant te pourtant c'est aussi une affaire de mars donc mën nga comprendre que kenn ku nekk nga am benn opinion ci lii maintenant moi je je dis que sànq wax nga ne il faut pas en faire un, un procès moral mhm. mais pour man Fatou Abdou euh, ci procès boo xam ne dafa interpeller en tout cas dafa benn kenn si acteurs principaux yi nekk na homme public homme avec grand H public rek munoo fexe ba du am tuuti dose morale parce que nature ñi ci force en présence la je je mets les à à force parce que euh, tey euh, li li li li am munoo muusa ko waane ba. duñ si laal ne est-ce que jaadu na diw ak diw dugg comme dama man bëgguma def procès d'intention loolu moo tax am na ay yoo xam ne kenn mësuma dégg ma ci ma ciy dugg parce que dama jàpp ne comme ni euh, Joseph waxee woon sànq ne euh, ñun il faut ñu respecter sunu institution yi mooy justice pour man am na loo xam ne il ne m'appartient pas à moi ma toog fii ñu Sénégal yi dama dégg ma ciy dugg mais jàpp naa ne morale bi c'est important parce que man dama bokk ci ñu gëm ne dañoo war a moraliser vie publique sànq wax am nga loo wax loo xam ne man dama acquiescer parce que dama ci dama dama ci d'accord xam nga man Ousmane Sonko euh, dafa dafa ñëw tombe ak benn besoin bu sénégalais yi am besoin bu sénégalais yi am te dama bëgg monsieur Sall nga dégg mu baax parce que yow da nga yor lu am solo muy école du parti man ñu yàgg ma dégg may wax di déplorer le fait que aujourd'hui les partis politique là euh, ñi amoon parti politique traditionnels yi mooy PS PDS ak ay PIT ak yooyu ñu am ñu amoon école du parti mu amoon ay idéologie ñooñu boo xoolee euh, ñi fa meññ buñ toogee ci débat yu mel nii danga xam ne y a débat et débat y a débatteur y a tout ce qu'on parce que tout simplement ñooñu seen euh, bopp yi am na lu si nekk te xam nañu lu gën a lu gën a terre à mooy ñoom parti bi ñu bokk ban couleur la am parce que couleur parti sax lu gën a simple dafa am sens kenn du xëy suba nii rek nga jël. Euh, euh, Euh, voilà da mënul nekk comme li nga tuddee sa doom li ngay xalaatee sa jabar sa soxna nekk en état ngay xalaat kii bu dee góor kan laa ko war a tuddee couleur parti noonu la amee tur loolu moo tax école du parti pour man ci mécanisme wala boog ci structure parti bu mënti doon li ci gën a ëpp solo mooy école du parti parce que kooku suba mooy moom mooy perpétuer œuvre nit ki créer parti bi te tout le monde sait que parti politique les gens adhèrent librement. Mais les gens adhèrent librement parce que déjà, il y a une émanation derrière, un peu spirituelle. Donc, moo tax ma ni tey euh, Ousmane Sonko man ba mu ba mu ba juddoo ba mu ñëwee euh, besoin bu mu fekk mooy ñun sénégalais yi ñun suñu génération ñoo ñoom kilifa yi nga xam ne ñun ñoo màggandoo ñu sonn kilifa mii ñoom lan lañu xeexul à l'époque Kaolack ci ñu ñu du ma si tudd seen tout parce que nekkatuñu fi seen sët yi ñu ngi fi. ñu dénoncé xeex temps yi ngeen doon def seen peñe yeeg yooyu <laughs> ñii maa ñu ko tàllal micro donc je l'ai maintenant ñun ñëpp suñu génération on était réfractaire à cette nouvelle classe à cette ancienne classe politique nga xam ne mooy paa yi mooy li ko di dénoncé ñu d'accord si. ñun ñëpp ñu ñu yàgg sàkku émergence leadership bu bees ay homme politique yu bees ñu sonn ci paa yi fi nekk nga xam ne puusal ma toog même chose donc ba mu ñëwee loolu moo tax c'est pas pour rien que tous ces jeunes là et même plus dama ànd ak moom parce que dafa euh, représenté suuf bu bees la te ñu ñu soxla ko mu ñëw nag dégguñu yu bari ñu ñu gis suñu bopp su ma nee ñun mooy suñu classe d'âge et les générations d'après nous ñun ñëpp ñu gis suñu bopp ci loolu ñun ñëpp ñu gis suñu bopp mooy euh, Macky Sall mi en 2012 je l'ai dit partout personne n'aurait pari en copec si moom que dina nekk président de la République mm-hmm. personne. personne. alors maintenant xaaral ci Fatou c'est mhm. important. pour ñu baaxal parce que li ñu dese bëriwul damay gaaw tuuti mhm. mais parce que c'est important. ndax c'est la première fois ma ma dugg ci débat. parce que moom je l'apprécie ma ñëw pour ñu nekk ñu déglu li may wax. Mhm. donc euh, loolu ba mu ñëwee mu am. après y a eu plein plein de choses te li mu li mu moom moom génération c'est la génération ay soixante-dix affaire soixante-quatorze nangam nangam donc xale yi gis ci mu fees mu ñëw. Euh, suñu code vestimentaire sax moom la Ousmane Sonko di utiliser capuche jean et cetera et tout ça donc yooyu sneakers et tout ñun xale la comme ñun. maintenant xale boobu mu doon nag nga xam ne fii Sénégal boo nekkee jigéen comme man presque dañ lay jàppe benn jot boo xam ni mu amoo xel amoo dara poupée nangam nangam boo nekkee jeune duñu la dénk dara mais moom mu ñëw joxe espoir. boo nekkee rappeur waroo. am xalaat nangam waroo am xalaat donc. yooyu yëpp et autant de choses négatives yoo xam ne yoo xaaral rek. <laughs> may ko mu yeggale oui donc loo xam ne autant de choses négatives muy ay étiquettes yoo xam ne dañ koy coller ay nit maintenant pour euh, résumé euh, euh, li lii yii nii xew xam nga après yaayu beaucoup ay am amoon ay incartades yoo xam ne mën nañ jàpp ne ay erreur de petit ay erreur de débutant la dans le discours et mais cette affaire là bii am man ça m'a fait un coup parce que dama ne euh, si tey bu ñu continuer nii te xamuñu dëgg bi fan la nekkee il a fait il n'a pas fait xam nga Ablaye au début au tout début de cette affaire là euh, Ablaye Wade a dit quelque chose d'important dafa ne euh, dañoo profitoo Euh, ci euh, faiblesse man man dans faiblesse je comprends une expérience de quelqu'un et cetera pour l'abattre mooy peut-être son Sonko di wax ñëpp di wax donc loolu man dans ça dama jàpp ne c'est c'est euh, la jeunesse te ñun kon Sonko bu fakk fakkasaloo képp kuy jeune da ngay fakkasalu ah, derrière lui donc ma wax la ne monsieur Saré man contre ma x faralu ma y ay principe lay défendre mooy euh, cette vie publique là dans vie publique y a la politique derrière mooy dafa war a dañ ko war a assainir dafa war a set maintenant xool may ma rek bilaay bilaay Fatou may ma rek waaw je sais baal ma rek ma chérie donc euh, <laughs> moralisation vie publique boobu moo ñu imposé xam nga sànq nee nga te te d'accord d'accord naa ak yow am nga droit dem marché wu dem def loo neex ça c'est la liberté individuelle waaye yow monsieur Sare sañuloo j'en suis sûr moi nga dem dugg fu mel ne lu xaw a nuroo ak waa xaaral xaaral ah, xaaral waa xaar waa xam naa waa xam naa xam naa xam naa comme ni nga dëggal aussi kenn ku nekk fii su ñun am nga loo xam ne yaa ngi koy nëb waaye dama jàpp ne boo fa demee tamit boo fa demee une fois danga am neen danga xoolaat bala nga faa delluwaat donc fi may jeexalee fii mooy wax nga sànq ne soxlawuñu imaam. Mhm. dëgg la waaye dañoo soxla ku nuroog imaam parce que fi ñu jógee moo tax fi ñuy jaar a tax te cette affaire là. il faut que pour nous notre génération et les générations à venir déjà ça a commencé tey jii képp koo xam ne kilifa nga da nga def da bu baax a baax parce que comme ni nga wax y a beaucoup de gens yu yu am espoir ci Ousmane Sonko ñu nekk ci ginnaawam il n'avait pas droit à l'erreur il peut-être il le savait pas il va le savoir maintenant et après lui quelqu'un d'autre man tout ce que je demande c'est que la justice c'est que la justice parce qu'il n'y a rien eu entre Ousmane Sonko et Adji Sarr et le euh, alors mais la justice va trancher. mais monsieur Sarré monsieur Sarré regarde regardez monsieur Sarré c'est à la justice de regardez trancher. oui non je ne digne pas vous savez vous avez le droit si. vous savez vous très bien très pour terminer foofu pour te, pour foofu parce que lu ñu desee ndaw na trop mm. mais yaa ngi wax euh, euh moralisation wala peut-être mm -hmm. la république elle est morale euh, peut-être ñu bari xam nañu loolu mm. mais justice bu ñuy wax ci république est-ce que daf ko war a tënk euh, ci mbiru moral wala des faits moom la ñu war a jàppee sànq mi ngi la koy wax certains ñoom jàpp nañ ne certains veulent en faire un procès moral mais est-ce que loolu dafa war a nekk rôle justice non non warul nekk rôle justice xam nga d'accord naa ak yow xam nga xam nga les faits les faits mooy sa dont on l'accuse oui. viol maintenant euh, bu ñu duggee ci complot ay yooyu xam nga loolu ñi ngi ci perception tu es, tu es d'accord avec moi maintenant moi ce que je veux dire moi oh, ce que je veux dire moi euh, en l'état actuel des choses affaire yi àgg na foo xam ne donc la thèse du complot depuis lors yaa ngi koy balayer non parce que tout simplement pour moi euh, complot dafa war am euh, début am c'est, c'est, c'est un long processus xam nga complot man ci fii si personne n'est bête quoi complot man dama jàpp ne mooy nga ñëw euh, Euh, euh, kilifa voilà déggoog nit jox ko benn affaire kenn ne ko demal tendre ko piège comme affaire jombas jow affaire yooyu regarde la fille là Khadija Mbaye <laughs> non non non non non attendez ma ma la ma wax la mhm. Euh, jàppoon ne mën euh, complot mën naa mën naa dab processus également xaaral xam lu ma jàpp man le mot complot la mhm. terminologie complot l'expression complot man xam nga lan laa ko remplacer mhm. man dama ko remplacer ak euh, dama xamul nag mais xam ñëpp xam nañ dégg ma man profito ci lu olof dox profito xam nga mooy lan d'une opportunité xam nga mooy lan mooy parce que man gëmuma complot ndax complot mooy personne Euh, kenn droguewul Ousmane Sonko kenn fekk mu jël këram dem il est parti dem na fa une fois dem na fa deux fois mais li ma jàpp mooy tey ji euh, euh, kilifa comme ce qui lui est arrivé kilifa tey. xaaral ma ñëw déggoo li ma wax man monsieur Sall loolu. ay satu bu terminé ma ñëw je dis. may ko jàpp ci mhm. affaire bi xam nga mooy lan. Mhm. mooy je reviens à une faiblesse. mooy ma ni Ousmane Sonko xëy na en face xam nañ ne dafay fréquenter tel endroit. écoutez-moi bien moi je donne ma théorie xam nañu ne Ousmane Sonko il est adepte des des massages dafa bëgg ay bëslu day dem fii day dem fële ñu euh, euh, maintenant parce que euh, ña yàgg nañu ko dégg. c'est pas son droit. xaaral xaaral ma ma monsieur Sarr yaa ngi koy dugal nag. monsieur Sarr yaa ngi koy waaw xaaral ma ma ñëw xaaral xam nga yow sama xarit ngay nekk après. waaw ah non si si sama xarit on va mais sama xarit nekk maintenant je dis. si on est on va être des copains Sonko on va être des copains donc j'ai dit. tooñkat bu mën a maslaa <laughs> voilà naan de laa nag maintenant à mes heures perdues donc j'ai dit euh, euh, Ousmane Sonko nit ñi yàgg na am na ñu dégg ne. dafa bëgg ay affaire bés lu daa ko euh, je reviens à lay metti dafa am dëgg dënnu muy metti tout ça donc le gars dafa tàmm dem ci ñu koy maasee wu maintenant. entre tàmm dégg ak nga mën a fexe ba ba ba na ko ciix mooy problème bi maintenant comme par hasard cette petite là euh, Sonko ñëw na fa mu mu découvrir ne c'est lui Sonko elle en parle à ce petit là hmm. le le waa xale bi le Sidi Ahmed elle en parle à Sidi après maintenant mu am lu lu fa déclenché wu. Hmm. écoutez-moi bien mu am lu fa déclenché wu écoutez-moi mu am lu fa déclenché lu fa déclenché wu mooy lan foofu laa waxee profito mais xam nga foofu amul complot profito bi xam nga lan la moom Sonko bu toogoon këram dem bu ñu xamul woon ne fii daf fay dem kon dara du xew te boo demee ba bëgg a nekk président de la république. loolu du ay c'est pas une mince affaire il faut il faut qu'on s'écoute ce n'est pas une mince affaire ñun ñi rek tey nga bëgg a nekk Fatou Abdou nga bëgg nekk chef d'édition wala nga bëgg a nekk rédactrice en chef dafa am fooy jaar am loo dul def dafa am loo war a def tout est un cheminement logique maintenant le gars il veut être président de la République du Sénégal mais yaramu neenam n'importe qui waru ko gis même ku dul nekkul dara n'importe waru ko gis il n'avait pas ba ay noonam mais Mamour Diallo dont on Mamour Diallo moi j'ai dit publiquement na ma xale yu vaar qu'il a fait je lui ai dit à lui Mamour Diallo il m'écoute nee naa il a fait une grosse erreur parce que ku ñu tam baaraamu dëmm waroo waruñu la fekk ngay soccu il n'aurait même pas dû toog ak Adji Sarr ba enregistrement di am et ça je lui ai dit mi ngi dégg mais par contre Mamour Diallo bu dee moo Sonko am nañu seen gitaanaas 94 milliards mu toog dégg ñu ni wii Sonko ndey euh, euh, ñoo fii def na nii nangam dug sax ku ne xam ne si ba tey euh, lu padaar la léegi la la gars va mais moom tamit xëy na je je ne dis pas que c'est ça mais bu fekkee ne booba def erreur dugg ca à la base mooy li ma la wax il faut retenir que il faut accepter que Sonko a fauté il a été le mooy mooy maye boppam. mu dem woon suuf ba tey dara il faut il faut que nag ce temps la mooy la juste juste rek il a une erreur à la base. Aïssatou te te erreur. alors dégg nañu la Aïssatou alors kilifa tout ce qu'on doit dire mooy plus jamais ça alors et donc plus jamais ça boobu mooy il faut que <coughs> qu'on aille jusqu'au bout pour qu'on sache Aïssatou Diop le vrai du faux alors c'est juste ça Aïssatou alors kilifa oui gis nga li mu li mu wax léegi c'est-à-dire dafa daf ci am lu mu ci wax loo xamante ni buñ ko dooleelee rek ñëpp a ngi ci kaso dañuy on va arracher à chacun ses libertés d'aller fi nga xamante ni ay envie la fi nga xamante ni Omar Faye mii tey maak moom dañuy ànd am na yoo xamante ni dañ ko bëgg dem dugg ci tàngana yeeg affaire yooyu kon ku ñu bëgg a posone danga naan dama leen di xaar foofu lakkal nañu dañ leen di posone je ne suis pas d'accord <laughs> Macky Sall bi mu buggee nekk président de la République il fréquentait des lieux yoo xamante ni ñoo gën a wàcc Sweet Beauty. comme yan. mais ah non hmm? non non je c'est pas une affirmation de dama ne wala boog ma defaraat ko <laughs> ñàkkul ni bi mu bëggee nekk président de la république mu ngi doon fréquenter ay lieux yu gën a wàcc. bu fekkee dañuy wax wàcc rek fii problème mu wàcc newu fi parce que Sweet Beauty aussi quoi qu'on puisse dire c'est un lieu boo xamante ni il faut respecter la dame Ndeye Khady jaay bi ko ubbi. avec son mari sa famille dëkk ci biir kër gi pour bañ mu nekk ñu koy jiiñ loo xamante ni dañ koy defee naka su dul noonu mu dëkk fa ak njabootam. il faut li ñu jot. Adji Sarr bu wax ñi fa doon mancé wu dañuy simeeku def yaramu neen. waxu Adji Sarr du ma ci dóor suma doom mais j'arrive waxu suma doom mais maa ngi ñëw rek. man damay posé rek de man damay laajte rek mais Macky Sall bu fekkoonte ni Ablaye mm. Wade. fu ñu amee jacuzzi comme ni Macky Sall doon toppee Ousmane Sonko comme ni Macky Sall doon toppee Ousmane Sonko kon du ko luppe du ko luppe état ku mu bëgg a topp pour dugal la ci yëfu mais ngàcce ngaalaama dama koy waxaat tey de mhm. on n'a pas besoin d'un imam mais on a besoin d'un imam un imam mooy kan kumaandu Serigne Saliou dafa wax léegi ni Sénégal nañu xool sunu moomeel gi nu mu del si waatee ci ñun ngàcce ngaalaama Ousmane Sonko ci affaire xaalis nañ ko toppee gisuñ ko ci ci xaalis lañ ko njëkk a topp gisuñ ko ci pour une première dans l'histoire pour une première dans l'histoire koo xamante ni il a euh, il est dans l'administration am la possibilité de de de de de sàcc xaalisu askan bi comme ni ñu defee. Ah, il ne l'a pas fait ñu ne léegi nañ ko topp ci lan waa ji dafa bëgg ay dem euh, massage dugg na fi kon nañ ko kar foofu mais man je maa ngi vocal yoo xamante ni bi ñuy préparer seen coup. vocal mais oui. pour yow mais yoo xamante ni bi ñuy préparer seen affaire bi. ban affaire ban. bi ñuy préparer seen complot bi bi ndaw si di échange ak ak ak boy bi. booy naan ko bugguma plainte bi sama sama samay vocal jiitu jiitu ci ci internet. non yan yan kilifa Adji Sarr Ousmane Sonko. Adji Sarr problème boobu booy bi mooy xale Ahmed Mbaye. et je pense que ah, vocal vocal yooyu ñëpp a ngi ko yor. nañu waxante dëgg. gis nga kuy taxaw fii naan euh, nañu bàyyi guddal njëlub noor mais juste rek. Euh, foofu euh, sérieusement dama ciy tënk dootuma wax ci wax ay Adji Sarr ak Sonko mais may ma tuuti rek dafa am léegi benn inco incompréhension benn kii bu am diggante ak su ak grand bi euh, di ci jéggalu téléspectateurs yi di ko ci jéggalu moom tamit di wax tamit ñiy seetaan que ni c'est pas une stigmatisation maa koy soog a gis mais